saay léew mii nag léew mii nag ku fi yolul xaalis léew mi ku fi yolul xaalis ah, ah, ah, doon doon ab dëmm sax moo moo lay gën. ndax nit bu xasee ba nit. nee nit nit bu nitee. mat mat na léppam. nee na léppam. mat léppam mat na def leen nii ñu màggal sëñ bi. naaj lay dëgg la Fall yaa la su ma doon tey baas. ma. Fenda moo may sal. te kii su ma doon tey baas. Fenda moo may sal. ci sa ñàkk jom boobu. moo tax nga indi ko fi da nga liggéey wala doo liggéey. ah liggéey maa ko rey. yow yow yow yaa ngi yaa ngi fóot. lépp ngeen di fóot ba mu set. baax na gën a. yow yow yow yow da nga war a lekk la yéen. dama ne lépp ngeen di fóot. waaye waaye suñu jàmm nga ayu kii fóot ci fóot. waaye yow am ah, na yoonu góor ci fóot maa tey fóot. yow dama nga liggéey moo gën ngay. waaw lii lii liggéey kii liggéey la de. waaw ok. eh yow nii nekk di apart de eh. waaye du ma son waay dafa nag ku ku xaax ku ku ñëw di affilé kay nga waa Kafaay mu ngi affilé wu. yow nii nekk di pët ni wax yow yaa ngi nekk di pët. eh Fatuma damay afaat. da ngay sonn waaye doo ko jot baal rek baal dégg nga dégg nga loolu dal yaa ko yóbbee sa bopp. moo tax kay dina ma sonal. ñaar bi yoo xam togg sama añ pare laal sama marinière bu baax toog di seet si ñàkk soo béllee amul njëriñ ndax doo du yàgg ba nga woo ma ne ma kaay bombal ma sama ginnaaw mooy sangu du yàgg ba nga ne ma kaay folootal ma fii kon ba njëriñ la am wa sa njëriñ sama yoon naw booba dee ñàkk folomaay bo ne góor ba nga day na sa ay fen nag mu ñuusaa ah, ba nga day yow yaa yow ñàkk la monsieur. sama